leen ziyaara di leen baal àq di leen ko balu di ñaan ci yàlla subhanahu wa taala bésub xaritam bu tedd bu màgg bii di yonte yàlla Muhammad yàlla nañ ci yàlla jéggal ñun ñëpp yàlla nañ ci yàlla defal yokk teg biir ak bu bitti ci sunu diine ak sunu wér ak sunu fan ak sunu wërsëg sant nañ leen bu baax ndax taxawaay bii ngeen def ba génne fi lii ngeen fi génne ci xaalis pas-pas a tax li jamono ji ku nekk xam na ni mu demee ba tax na maa ngi ñaan ci yàlla ci barke Cheikh de Thialaw yal na leen yàlla wutal leneen lu ànd ak barke kër gi nag kër Cheikh de Thialaw la waaye li wér te wóor mooy fii mu nekk nii may wax yéen am na ñoo xam ne ñu jébbaluñu ci Cheikh de Thialaw duñu sax ay xaadir ay murit lañu ñoo ci ëppaleegul lu ñu def am na koo xam ne ñeent fukki toni ciment la ma jox benn xaatir joxaguma ko am na ku ma jox ñaari million am na ku ma jox ñett eh, juróomi million te sax ñooñu ñëpp kenn du ci xaatir kon nag yéen ñi ko moom loolu ñoo ko joxe yéen lañ ko joxee la ndax yéen a ko waroon a def loolu dama ko wax bu bëgg mu nekk ab soññ ci nun kenn bañ a xeeb dara lu waay am def ngir yàlla ndax waaw yàlla xeeb na de waaye du yéen xeeb gi mooy yàlla wërsëgale ay wërsëgale ay junni wala ay million mënoo caa def lu ñu téeméer ñaar téeméer parce que yàlla xeeb na ko yow mi am million kay wala ay junni war ngaa mën a def lu ëpp téeméer yéemul nag moom loo ko jox lu mu bari bari du ko yéem ndax moo ëpp la ñëpp tam jeex la kon nan la nan leb lañuy ngir yàlla masalul la يصدقون أموال في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل ذمة مئة ألف والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم يلا نينا مثلا ميغا خامن سين الال ديكو ديف سي يونو يالا ميغي ملني بت سيدي غا جيل دوغوب ديف كو سي توبا مو ساخ نيك جوروم gattax yooyee bu ci nekk we téeméeri fekk mu juróom-ñaar téeméeri fekk nee na ni yàlla fule benn cof ba nga defoon ba mu ñu lay fulale kuy def ngir yàlla Ali Abi Talib ne fulal kuy def ngir yàlla moo ëpp loolu mu jurat lu toll noonu ñu ror di ko def noonu di ko ful noonu di ko ful ba yomal xiyaam yàlla fay na ko kon kooku moo jaral lebal laa ngi ñaan ci yàlla nag seen ñaq wi ngeen ci def yal na ko yàlla faja aji yëpp بجاهي نبينا محمد بتبارك الله أمنا لبر المور نوح أمنا نمور جات يوم سنجرم واي خطنا وقت يجات إن شاء الله بنو دمي تتانت ببنغوني وموت لكو أمنا خمني أن في ترانغ يو خمني وقت دي منو مكو لم سخمنا دمي أمنا ما تجوك رك تبلين واي منو مكو لم دخ بارين نيو لول تدفن نيو في لباخ لول ما شاء الله ما يلن دنيا لليالله yàlla nañu yàlla nangul suñu gàmm bi jaay na bi şey na Muhammad jëwriñ yi jox ndigali taalibe bu nekk te lëkkoog moom parce que su fekkoonte ne seen jëwriñ yi kenn fa kenn ku ñu nekk fa mu nekk taalibe yee fi nekk ànd nañu topp ci gannaaw jàppale ko kon mu gën fee neex def leen loolu def leen ko te bu ngeen ko dina baax Badara Gueye mii lu nekk daj na te xam ngeen ne moom de mag la waaye tey jii taalibe yi nekk Pikine nga xam ne Cheikh de Thioro lañu yaakaar waroon nañ ko mën a wuutu ci li ko wax rek papa da li nga bëgg di ko doxali moom mu toog waaye teewul mooy jóg fu nekk Mbor Gueye mag la wérul fu nekk ma nga fay dugg ñeneen ñi ci des ñëpp noonu kon nag takku war leen ngeen jóg li may wér te wóor de mooy amul genn góor yàlla bu yewoo fii ci Sénégal lu dina fi tudd ku raw Cheikh de Thioro kon nag mu ñu gëm Cheikh de Thioro bu nu kenn rawee rek ci nun la danay wax ne nag ñun xaadir natt bu rëy lañu yàlla teg danoo yob yenu bidoom ndox bu sedd guy di dox ci mbooyo mar lool bëgga naan te bidon bi nu yenu mënuñu cee naan mooy ki nu yàlla booleel te xamuñu valeuram ba mën cee jariñu kon nañ defaruwaat mm-hmm. beesalaat sunu taal bi Cheikh de Thioro fii la daan toog ci nguraan woote dal di santaane nañu nañu góob tool bi nu mu gën a gaawee bojj ko maa ngi Cheikh Saad Bou nga nee eh, toog ca Nimzaat ca xaymaam ba di bind ab lettre di ma ko yónnee pour di ma yëgal ne dund bi ci Nimzaat jaar na te mi ngi nguraan Cheikh Saad nga Nimzaat di bind lettre taalibe bu matee taalibe jaar fa mu war a jaar toujours day synchroniser ak ak ak sëriñ loolu nag gëm ak am pas-pas moo koy maye waaye fu mu àgg pas-pas ko fa yóbbu sànq maa ngi waxtaan ak ay ma ne leen rajo ventilateur yi nuyu ak rajo yi yii yëpp li tax nu mën cee wax pas-pas rek ay fiir lañu faste pas-pas yi fiir yi fiir bu nekk jàppanteeg morom jo ba mu mën wax fiir bu nekk jàpp te morom ba mu mën na ut pas-pas mooy jàlle nit pas-pas mooy tax nit yegg ci yàlla pas-pas mooy tax nit xaati goon ci dara yàlla fekk ko kon nag am leen pas-pas nan dolliwaat pas-pas yi bu baax yal nañu yàlla dolli jàppale yal nañu ko teewaat déwén salaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf